mu la ah ngoone ngi bëgg a jot de teg maa jox ñeenti rek nga jox ko ñeent mu ne la demal nga dem ba timis jot mu ne la dóor ma ñett gee jot ma la ñeent te bu ko neexoon genn wàll bis bi moo ko genn wàll nga nekk sa bopp kon lu métti métti da nga ko def kon bu la ne jox ma ci 10 minutes wala jox ma ci 30 minutes ci 24 heures yi ah dëgg dëgg war nañ koo mën a matal tey tam buñ xooloon suñu dund ñu bari ci ñun ku fi yàlla bàyyi 50 ans boo calculé doo ci jaamu yàlla lu mat 4 ans moom 50 ans yi la fi yàlla bàyyi boo kër gi ni ko ci jamm lu ëpp quatre ans motax lolu loolu mat naa seet lool ndax 24 heures yi manam ni ci jamm yalla luma ma trente mom beuri bëriwul ndax julli moom gën jii beuri bo ci defé juroom ben minute paré ca légui nak bo calculer 24 heures nga jël ci ñett juroom ben minute yow kon bis bi ñaata yoon nga ci jamm yalla motax war nañ ko xolat motax buñ xolé ñu Bamba tabarakallah ci loolu la jéxal dundum bi yépp moom bañ na ko ba dafa jël tànk yoonu murid di doxee mu sos ko juróom-benni jéego yoo xam ne tabaarakallaa ku ci tënku sëñ biir baax bu si njëkk mooy al ilmu al ibada al amalu al ak al ak al yii tànk la di doxee bu si njëkk nag mooy al ilmu xam-xam mbokk yi lenn lu nit mën def te jiitalu ci xam-xam mënta am sa téléphone bii sax boo ci amoon loola jaaxal loo jël benn waaye rek fee nga jox ko ne ko sooy nangam de da ngay xool koo jàpp ne moo la ci tane xam-xam nga jox ko ne ko xoolal ma lii jaaxal na ci moo tax xam-xam lenn luy dox ci àdduna te duñ ko ci jiital mënta moo tax suñu balaa kenn suubu ci dara na ci jiital xam-xam moo tax yoonu murid sax borom xam-xam la soxla moo tax ku ci nekk bëgg ko sàggane suñu tubaab waxoon na ko nee na ah, wa min makaa'idil aynil mujrimi saddul muridina ani ta'allum nee na bokk na ci xoos yu ko setana xoos moy deug gi mu dëdduloo mouride am jang manam mouride yi fekk seen serigne jël léppam def ko ci jang ñu bare bare dañ ko woyefal ndax farataay julli waruñ ko na laaj kenn muy naka nakal sunna julli waruñ ko na laaj kenn muy naka nakal farataay njàpp waruñ koo laaj kenn muy naka nakal sunnaay njàpp waruñ koo laaj kenn muy naka nakal ndax bis bu sën nga def ko kon nak yooyu wat mat na xam ndax farataay julli mënut juróom fukk mu juróom ben fukk fukk ak juróom dong la sunna yi tamit tasaare ko na ko noonu njàpp faratay juróom-ñaar lay loolu ku ko bëgg a xam balaa yàgg man koo xam waaye ñu bare bare fi ne boo naan ku mën a lim farataay junne yëkkati loxoom te loolu ak saagante ndax yi ciy def ci téere kon ñu xam ne noonu la demee waaye suñu tubaab bokkoon na ci li mu yaree woon mag ñi te jeexaloon ci dundam gi mooy fexe ba ñuy farlu ci julli moo tax moo xoon ca bay bënee سارع لنا سمع الأذان باجتهاد إلى الصلاة يرضى عنك خيرها سنتوا نينا نين فرلو تغاو من ديغي اك نودو نين غور غور لو جيم سي جولي ah bu ngeen ko defee de kii borom bi daa leen gërëm waaye suñ tubaab waxaat na it wala tuaxiru salaata amda li wajhi baaqi laa yulaaqi hamda suñ tubaab nee na bu sañoon kenn du fi yéexee ak julli maanaam koo gis mu yéexe ak julli rek nga yëg ne maa ngi sàggane li gën a maam ci dina lenn loo fonk ci lislaam te sàggane julli yëgal ne yàlla gisatu ci moo tax moo xam ne suñu bu leen julli mukk farata te wax koy jotu waaye suñu tubaab képp koo xam ne dana damaa jàpp naa bàyyi ba pare soo ko julli suñu tubaab doo jariñu si julli ga doo jariñ ca la nga waye ko ne ah na julli ñoo ñëw mottali suñ ko da nga jarign ci la nga doon def da nga jarign ci julit man shaghalahu as-salatu anil ashiya intafa'a biha wa bil ashiya waye wa man shaghalahu al ashiya anis salah fala yantafi'u biha wala bil ashiya kon lo suñ ko wàllu la tam buñ xoolee ashiya am bamba moom ah, amon na ñoo xamne def na jël spécial sax nga xamne nodd rek ñi bàyyi waxtu bi rek loolu lañ féetoo ngir farataal bi ñu ko farataale ak ngir fexe ba maanaam murid yi ñu làgg ci jaamu yàlla rawatina di ko jaamoo jox waxtu waaye itam tabaarakallaahu gis ngeen suñu tubaab naa am koo xam ne da koo tegoon ci euh, jàkka ja ngir ñuy nodd waxtu julli jot xam naa ko mu nekk ci yenn nit ba noddul suñu tubaab rek la koy waxee waxtu moom du ay nit ci ay nodd ba waxtu jotee suñu tubaab julli ba mu jullee bay génn rek. dajjanteeg waa ji di ñëw wala ba muy génn fekk waa ji di ñëw bëgg a nodd a ne ko déedéet waxtu du waxtu nodd ba mu paree suñ ak ni mu fonkee julli ak ni mu ko a nekk di doyadoo julli boo yee boo ñëw daal di teel a yeewee ko rek ndax boo demee xëy na doo fi doyadoo julli kon ñu xam ne suñ tubaab loolu bàyyi na ko xel tabarakallah waaye itam ah, nee na suñ tubaab bu ñu bàyyee xel tabarakallah ak ni mu fonkee julli bu ñu xoolee ca géej ga tabaarakallaahu activité yu bari suñ tubaa bu ñu xoolee ci dundam ba ci julli ci géej ga yooyu yëpp day waree fonkam julli ndax wax na bu ñu xoolee na ko bëri muy waxee wa fil bahri asra yajri bi jildihi ma al fulki yabdu raakian xayra saajidi kon ñu xam suñ tubaa lu ne def na ko ci julli waaye Cheikhul Bachir nee na lépp lu ñu mas a defal suñ tubaa waxtu yu jot dañ ko fanaan ñëpp ko dem si julli ga soo ko ñëwaat fii mos naa waxit ne mos na ñi waajal julli par kër gi tàmbalee tàkk ak mbay meeg yooyu gars yi bëgg dem di ko fay suñu tubaab di déedéet bàyyi leen ko fi dem julli ci nee na ñu bàyyi ko fa julli ba jullee ba ñëw fekk ñu fay tàkk ba des.